góor mag nga de waaye yiw nga yooyu boo bëggoon jabar ñu may la de ki nga may maga ma ngi fi mu ne ku ma may mu jël ñu fab aminatu may ko abdoulaye fab xaalatu may ko abdul ma am ca am satu ak mu xaw yi mag jaraa ak xale boobu ñuy wax safiyatu mu màgg ñu may ko xawaam mu jur suba yow muy doomi bàjjini rasulullah moo tax keroog ba am tutu daanoo ci uhuud na bi def consultation ci aho fekk am daanu ñu dog tiam bagga bakkan yi génnee bët yi xar xol bi Moustapha dafa jooy ne bu dul woon ak dara nii laa koy bàyyi ba mu dajeeg yàlla fekk dañ ko xeex sorewul ak Medina jigéen ba dégg ko di safiyatu di bàjjen ci rasool di wallu si nabi ne subayru nee yaay bu mu agsi seen jaay góor mënu ko gis sax waxtuma la ak jigéen mu dem ne ko yaay Moustapha ne na bul ñëw sama nijaay ni nga ko déggee am waay ne na bul agsi mu ne ko li ma tiin ma tiin sama càmmiñ balaa ko rob mu dellu si ne ko sama yaay ne nga bàyyi ko rek mu ñëw di jooy moog yow bokk fi ngeen naan te yéen a bokk si dit mu ne soxna si ak nee roba yi di jéggi néew yi daal si am sutu tim ko ne ko mëpp fóon ne ko tib taxa yen wa mayeta mosulaa dañ dégg dañ gàcce di jëñ gàcce ci kanam ngóor si ba yàlla jël yàlla yàlla may àjjat na warañ def su bayru moomu moo doon roog poqataani Moustapha Aliou Sow ne ko ñu watat ko ba néeg bi mu ayee ñu dugal ko ci ba Moussa Lamata jabaram la ju baax mu réunir femme yi ne leen kii dafa ngone rek waaye talatu tax nanu bàyyi ay bi may ko ndaw si ñoom ñoom ñu d'accord may ko ko waaye ay satu ne na bu ay bi continuer woon contrôlé naa maa war a ay keroog bi mu faatu daana wax ne na dégg nga faatu suma kër suma biir néeg suma bésab ay faatu na it samay tufli dajab yësam ndax Moustapha ku bëggoon seccu la wax nañ ne seccu am na trente-six ngëneel bi ci gën a gaaw dina war a fasax dina dax xetu gémmiñ dina dëgg ne siiñ dina doon li gis dina doon li dégg dégg te sotti kat ñaare deem du nit waaw téere bi na loolu ba nga xamee ne na bi arrêté na ko amul priorité dootoo fi dugg Ababacar jiite nit ñi gis kat biñ yu farata ku sa jigéen sëyul ci kër gi mbaa na bi may la doomam doo fi dugg ci Abdourahmane xëy seet si ko bokk ak ay sutu moom ba ay seet socc na bi nag jàpp socc bi tey tey xet soxna si xam ne socc bi la bëgg mu dee ko ne ko xanaa socc bi nga bëgg fekk nañ daa ngi wàññeeku ne bind nii bokkut mu nangu ko ci xale bi sexal ko ko ba ngi dee mu rot mu for ko fomp ko sexalaat ko ko ba ngi dee mu rot mu ne ko ma yëyal ko ba mu tooy ne bind nii mu yëy ko ba mu tooy mu jonj bëti boori ndeyjoor ba jonj boori càmmoñ ba na jàkk asamaan ne allahuma rabbi xala ala ruugi rot moo tax mu ne sama ay la rot ndey ci sama niit ci sama dënn sama tufli daje bisu ci daaji maag ni في يوم مولده بنك سبارة في بيت عائشتي بنك سبارة خطل السواع بنك سبارة بزهري وقنا غير بينا بجيني أدنى وقت بس بمجيني أدنى وقت أور بمجيني أدنى وقت ليه بكلا نوي بكلا نوي بي وقنا كبير بمجيني أدنى وقت بس بمجيني أدنى وقت أور بي وقت ليه بمكدفة في بيت عائشتي لن لا بطرف xabla sawaal lu mu doon du heure te seydi mawlidi yi du weer yii la maalaaji Maalik ren gëm la ci wenn woy dara jàngarul mu teere noonu noonu la sarse nag noonu la sarse classa bi ba mu daj wenn woy wu ci nekk mën nga cee am fukki fan te du jeex surtout buntu bu mujj bi ngeen toog rek déglu dama bëggoon sax kenn bañ a woy ndax buntu bi mën a jeex wala boog ngeen di ma ko defal benn yoon sopp tet eh, bu ma jógee nag gars yi maa ngeen gësam garab maa ngi gëtëm karabak karabak wax warab nag buñ ko sàkkulee ndax gëtëm ko léeg doom bu ñorul sax rob waaw ku ci seen doom boo xemem leew na la ku ci gis bo leen boo xam ne wuute na ak loolu nga ñaanal ma te teet kasi xamal bul di xool ciy wax arab ne na bul xool waxkat xoolal la muy wax la muy wax a am solo ciy wax amul solo loo ko jippi jippi nag bu baaxee fa loo ko bëgg bëgg su kiiwulee këf këf ko Maodo yëkkatil way wi jox ko alaaji gay mu yëkkati ko ngeen jox ma jaaxal yaa noonu yaa xaalisal baxri Moustapha am 40 ans ñu door koo yónni ñu dina laaj kañ la dee nga naan bi mu amee 11 ans mu ne taxutee tax may wax lu ngeen laaj juddu ñu ne waaw mu ne kañ booba muxtaar dana la jëlee bu dee juddu kañ dëgg-dëgg boobu muxtaar na à la jëlelin ci si fay jëlelin lam 30 la bii lam bi 30 mooy قل يوقر الله نفسا إذا جاء أجلها سنبي كومبوسي القرآن دفنا كونتيل لما لقد دل تأخر بصور فنجن في يمكي سوزان تروسا روف المو بدل أن يبلا من ذلك دي كونتيل فإذا جاء أكل منازقون سوزان تروسا للي جو مدفل فآية بل كل سيارة نرى اللي دي بل يحبوه نجي دا أوتنا qul yatawaffakum malakul mawti allazii wukkila bikum summa ilaa rabbikum turja'uun ku oote mawlaahu borom ab kii ma doon woy ku mu oo wóor ki ma doon woy fu mu jëm ak moom lil këram yi jaajënaam gi tedd ja kañ ama udiya atan asma mu ne juddu ngeen di laaj ñu ne waaw mu ne boobu moxtaasan ala jële ñu ne waaw nit ñi rey ñëpp lañ am naa fu la ma xam ko ngëneel gi dem na fu nekk am na luñ ko beral lu ñu defalul kenn ñu ne loolu ay lan ci الإسلامي اختار الله إذ ما قيره الله إذ ما قيره الله اختار الله اختار الله على كوني ساسودين ساسودين أني زغر سورة سورة كونغو فلا لا جمال جيل جلوخ يمين سوخ dafa tollu diggante أو Fatima mu sëgg mu sëgg ci noppam rasul di wax ak moom àggalagul mun a ñamet siggi mu forcé ko mu sëggaat am lu ko Moustapha wax mu siggi jooy nit mu sëggaat am lu ko nabi wax mu siggi ree ginnaaw gi laaj nañ ko na boole nga ñaar yu safaanu sa papa wax naa yow keroog bi mu génnee àddina nga siggi jooy mu waxaat yow nga siggi ree mun ne wax bu njëkk bi daf ma xamal ne tey la sama bés bi mujj ci addina tey laa dajeeg sama borom looloo ma taxoon a jooy te gàtt bi nag li ma tax daf na ñi ma jur yëpp yaa may jëkk fekk si looloo ma kontaan loo mu ne ko lu tax doom may wax yow ngay siggi te yarewuma la noonu na bi ëppoon ñëpp a teggi bu dajeeg yow ci yoon waxat mooy jëkk a jàdd su ngeen joxantee loxo yaay jëkk a su ngeen taxawee yaay jëkk a départ su ngeen di jàmm sant jàmm sant yaay di ko noppi soo ko nee mane mu taataan la noppam bu tedd ba te dagaa si wa si gémmiñ du siggi yem si bila xamti wala naal ila iyadatil maridi jalla wa ala mu ne ko papa day def bu ma sëggee rek lu mel ni takk dee tiim te bu ma sëggee du ma ko gis na bi bëgg a jóg pour xool ko doole di jeex mu ne ko may ma dox mu rof poqataani Moustapha yu tedd yu dëj ko na bi dawal bët bi mu muñ ne ko wax nga dëgg malaakal moo tey làqu si bunt bi بسم الله لدي بمجو من يتهمونك على سائر جيحتا او لغابد ملا كيب كيب سنين ما بمجو ينسي والا لو بلا نيخي بلا نيخي ايه كنت يوقن لولو بلا نيخي بلا نيخي tax nga dem tey àjjana mu ne ko dem tey ma ne ku ñu noonu toog fi junney at kaay dem tey àjjana tey tey ñu yóbbu la àjjana mbaa nga toog fi junney at te boo dee débrouiller sa bopp da nga eh, bàyyi rek ma faf débrouiller sama bopp moom nag dañ ko ne tey àjjana junney at àjjana mu ne tey déglu wax bi moo tànnal boppam laaxa dajeeg yàlla kañ la isma xayyarahu keroog ba nga xam ne tànnaloo na ko dem ak toog ku ko def loolu laawu yàlla moo tax ma ne axtaar allah isma xayyarahu allah isma xayyarahu allah waxtaar allah ñu ne na mu def njaboot bi mu ne saa suuf bi mu ne kër yi mu ne saa sama bi laa ilaha illa allah axtaar allah ala kawnihi saa suudin an zahaarihi wa ala kawnihi saa suudin an zalami njaboot gi gannaawal na leen fottu nit ñi ñu ne dafa xëy dee Maodo ne xam naa ne ñaata feebar xam fi ko feebar di attaqué xam bés ba ñu ne wax nu ko suba guddi mu ne la الان بعدين وهناك انا رائد الامور في يومه العالمي تلميم البيت التقميم البيت بطل تقميم البيت موي وي وو ارو البيت يخ تخ بيت يخ تك تك تك تخافي يا بدس نقول لك كومبليتي تلميم البيت موي وي وجيخ تك خافي يا بدس توخ بدس نعدل يا كوفينيك moom du def na ko ba tay ci xilaatat Abdou Manaf bu mag bi lay wax وقل قصاها ما سالوا يلون إلى أن جاء بنا كفال بيت عائشة كنيجي جبرا بني وق عائشة كان خبل طوال ينام تجي بجب يوتو تسبا كلا عادي مالك نبغي قبول في يومي ما في في يوم مولده ما يدشب في بيت عائشة ما يغيب قبل صلاة ما يغرب بغير مولد ما يروح xamal ne bi bi Moustapha àggee Madinatul Munawwara réception bi neex lool من أجل ذلك رغب أرخى سنان لها أتتنوق تتنوق لو المؤسس جنة تاجي وما بتاعي أي نسجد قد يقدر إبن مالك وحلول كتب أيضا وما بفاعل نفس به قد يحتضر به ألتا فتبين الحق سنة البكومة في تابتون بتا بقيت تابي واد مطارع من قال ده لو جينا تاجي باي جينا ما تخلج ماري تجي جينا تابتون ده وين مودي من أجل ذلك قد أخا كمام لها أتا تتنوها مديش متجي جينا تاجي مور موينه من أجل ذلك قد أخا كمام لها أتا تنوها بعض المسجد الأرض minaj misaal yi ko mooy lan walam yasal qailan mustandili fi ma'muratu saatu usnin sawi muutusun min ajli zalika nag alxasmamla bi la dina yoxoos mi nitul mën a war a dafa fekk ñu xam ñaari mbir xasul ci nekk ci ndeyjoor law ci nekk ci càmmoñ ñu fa pëloon borom kaas kaw yi yëg ci di tuur bong bong ñi di tuur tàndarma am na ñu bari xaalis yor penc mu mu duggoon ak juróom benn penc am ñu dina boobu penc bu nekk am na chef de village dafa colori borom tax ko yéeg ci di tuur bong bong ñu di tuur sandarma am na ñu bari xaalis ba yor sol benn benn benn benn bi dox penc mu mu duggoon ak juróom benn penc am mi dina boobu penc bu nekk am na chef de village banni bayaada teg banni zaïd banni banni xaatib kenn ku ci nekk bu duggee seen penc balaa ngaa génn na nga dogale ko téye nosu na ko bu ñuy wax Medina tee tax wàccal tee la gor yi ne tee chef de bi wax loolu na bi génte ba toloo fa nag am lu mu la bu la ko déyee rek gën a yarax xaaka gi dellu ci lànd bi dinañ ko continuer tàpp mu ngi sol mante bu soon daanaka toujours boo amee tubaab nag lu ñu lay tañ ni weer bu ko benn bayaada xaali day chef de village ba ne ko nuus ne ko fii la doole yi mi dina ne fii la gor yi ne wàccal na bi la nga am lu mu ko déy mu ne yarax dellu ca lànd alaaji Malick ne la nabi doon déye xam naa ko waaw waaw booba commandant d'arme bu ñu wax jibi la jiit yor benn bato wuru tungalam di jox na bi sin di leen di si ko ku ne nuus mu ne sañu moo tusa mil maamura di leen di si ndigal na ne bàyyi leen ko mu dox maa doon am ne min ajli sali ko tontam lu sax dàkka loola mu tontu ko premier deuxième troisième nee na aji saalika ngir dégg tontam lu sax pàcc googu xat arxaal la ñu libéré ximaama nas ga laa na gëlim mu tënkal boppam rek di ful di tënk di ful rek attaque na wax baabal masjid cafanara doon bunte ba fii ndem keroog ngay firi ndem keroog ngay firil nga ne cafanara doon bunte ba hmm. bu dee tey nga ne ca bunte ba fële tëj waaye badru ma allah jeunesse baax na ñetti tomb ak raat ñetti tomb ci la mari dafa bàyyi lu ko bi ngir sakkanal indi saar waa walam tax ha walam tax ha ورجعت ورجعت وبركت وبركت ورجع ولم يخل كوكو ما جاء بأصل جملة الجملة تمام ما جاء بأصل الحرف أك ما جاء بأصل الكلمة أك ما جاء بأصل الجملة المجاز بعد جملة الجملة أنقوا يطاعة سورة طاعة فقبلت قبضة من آثار الرسول فقبلت قبضة من آثار فرس جبريل الرسول yëpp ñu dox ko ci alal maal dagg yooyu yëpp ay gileem ga ba mu gisee Maodo dafa bañ a di wàcc mu ne ba dellu si waat yës ne nañu ikkamatu bi nekk yës dellu si yësaat ñaar la première yëf bi daf ko ne fay kër gi yàlla wax ne bi dig digal mu dellu si isaat ne ko fii lañ la yoon bi moo tax di béykat ay ubbati xam la sax gis ko njëkk gi dana kër daanu ne bi dig digal pour mu wóor mu jóg wandaalu yeesaat ne ko fii it mooy bàmmeel bi fi ngay taxaw ëllëg ram mu nit ñi. yëg nga ne njàpp mën na bi dugaale woon bàmmeelam moom lay taxaw ëllëg ram moo ko nit ñi du ko yeesal sax ak dana xàcc bi mu benn bàngo benn ba bi ñu di dogee biñ koy suur réeroo am na xamaa dañu la ko wax léegi réeroo su ndaw soosu mooy jaabante ñaari jaabante yooyu ci keroog ba mu agsi sida aj malik ne xew-xew baa ngi amee fi yow mi mawlidi bés a ngoog fi bayti aisatin place a ngoog xabla sawal heure a ngoog fi seeri mawlidi weer a ngoog dañ jékki-jékki rek gërëm yi ci nit ñi yëpp gëmbandoo mbaam yëpp ŋaaxandoo ginnaaw yëpp xabandoo garab yi def xapapatakap xeer yi ro Abdoulaye naa ah, ah, doomam na ko baa na la xew de mu ne ko lan mu ne ko rasoo génn naa dina léegi la ñu wax mu sànni roto bi fekk mu ngi plan mu sànni roto bi ne yàlla xale bi li ma wax bu dee dëgg xaru day araam waaye sama nagi bët yi bu fekkee lu ma xool xool ci du ma gis Moustapha naa gën ma tey jii fala fala silmaxaa ba dee xasuwaa gilee moom la woon ba na bi dogee dañuy xëcc di xëcc ba jeen nga dog mu dee dugg ci teen yàppor mbaamam ma lekkatul naanatul ba ni mu ko fekkee Moustapha a si dañ ma dana wax yow loolu léegi ñu ne waaw Alaaji Maalik ba nabi génn àddina ñaata fan ci weer bi mu ne ñetti wax lañ ci wax duma tàyyi nag dinaa la indil yëpp ba xam ne li ma noonu la yaakaar seen baar yi dëgg la ñu ne banat banat banat ban mu ne يكمل ها هذا لليلة سبقرت وقيل الليلين هذا غلطا وقيل بيوم الكبير 8 بعد 2 فبكتين غتيم huit plus huit deux dix plus deux douze al sa bu ko wàññaale demir daa ngi ci weer wi boo ko calculé daanu waaw am na ñaari wut bii demir di ci weer wi la dellu bii demir di ci Moustapha la dellu dafa am koy ku doon laaj xalaatu naari yë ak xalaatu tuntina bu ci gën a foor mu ne ko naari yë day di demir yëpp dellu ci ni sax ma gën koo sopp te kii demir yëpp dellu ci juri waaw waaw maa ngi la am nañu ne maa ngi leen di questionné ci li guddi xat xara boo xam ne wéy na ci weeru gàmmu la ne bi génn àddina ma laaj la kon ñaata fan feebar ci digg barax la wax feebar bi tout fukki fan la woon ak ñeent ma ne boo amee benn bés fële dee kon ñaata fan la feebaroon weer wa fukk ak ñett du noonu wa qila lay lay nii bu fekkee ci ñaari fan ya la te fukki fan ak ñeent la feebar kon ñaata fan la feebaroon te barax diggu gàmmu wa nga ne fukk ak ñaar du noonu aussi la mu ñu ne fi wóppi fan yaag ñaar ci la génn àddina kon ñaata fan la feebaroon fee ñaari fan am nga si daxal ñaari ñen dikk waay kay seen te ban xiila yi bu mu la tax a yokkat sa gëstu rek gëstu kenn day te nangoo yëg bu yàngee nga daje dëkk wax naa la ni xultu ak xaala ak xiila la xiila xultu mooy firi man wax na ne wax na ne ku sonnal ci ko wax mu wax ci wax laa wax waaye neex na amul mu dëgg ba toujours ci dégg gi daa daal di ni fi dëgg gi gën a joy jëm bu leen woy ma ñaxatu ñaar yooyu ngeen woy ñu jàll dama bëgg a góor gi dégg yëpp juróom-ñeenti ci bi si la Haaji Malick ne na fi qawlil ashari wax di gën a siiw am na jeneen ju am waaye bi gën a siiw laa lay waxal ngeen teel Muhammad ci digg guddi ga lañ ko dooroo déglu na foofu bu baax gaay بقوله أظهري لا لا وقت وغبي قنسيو يبنى يبنى لو قسلنا نقسناق دما كواخو الوخلي قنمر موضوع وخلي دما يبنى يرب لنين قسلنا لنا نلوتك لي هذي اللي يدل نقسنا لولا اللي دكو قنوي كون بقوله الأظهري wax bi gën a wér mooy ana جمم na جمم jëmmam ju sedd jëmm nga ana léegi su la ñu ne ban heure mu ne fi jëw fii la ci digg guddi yow laay waxal nag li koy tuddi nii xamal li ma lay nettali wax ka nga xarañ ba mën koo nettali ni ma la ko bul woy de ne gaaw a rab mooy sunn ci la ñu bëgg ko gaaw rab niiw bu na deena ndéem dana lap mbaa jaan màtt ñoo ñaar bëgguñu ko leen gaaw ku jaan matt bëgguñu ku ko gaaw a rob ku lab ci géej bëgguñu ku ko gaaw a rob niw boo am gudul yooyu ñaar gaaw a rob la ci yoon ba jigéen ju mata gaaw a maye bor boo leboon ba jekko gaaw a fay rek tukki ba sa aajo faju gaaw a ñibbi rek lu tax rasulullah yi dañ lay laaj yaa noonu yaa xaalis bari lu tax na bi santaane gaaw a rob ñu tardeel koo rob mu gën a jëm altine ci inaar jekkali ba cëg ba dugg guddi talaata ba bër set mu indi talaata ba jant so mu dugg guddi ga ba mu xaaj loolu mu ne ñaari kaya xewa yëpp ginnaaw bi mu doy la xew fee bu ci nekk dafa am werante werante wu nekk arbitre rek la mu leen atte xam naa billahi une heure ba am daax sëti deuxièmement maa istiqaal yi ma ne wàlla kàllaam bi deewul Omar nee na deewul ku ne dee na rek ma rey la dafa jéegi jéegi yàlla nu Moussa defoon ba ci altine bi loolu la ñu yorente ba jant fa ñu d'accord ne dee na ndax Ababacar ñoom jindi booba mu ngi ay ci séytam bu ñëw abi ba tuddintu xaari jàpp guddi ga Ababacar fanaan nii mii dina kër bàyyi xale boobu la fanaan keroog la xale boobu judd nga xam a gaaw bi ne bi yoon àllaaxira mu ngi koy ciital moom bi muy dem àllaaxira mu ngi ko bàyyi mu ëmb doom bu jigéen la wasin ginnaaw ummu kal soblu maa ngi dégg akaro alaaji maa ne tay deñ nañu lan daf na nabi rob jëmmam ju tedd ci ngir lan ngir ñaari fay premièrement min tax setin karum gëlënt du dëgg deewul ñu d' accord dan na daa Babacar ne innaka mayitun wa innahum mayituna suma innakum yawma alqiyamati inda rabbikum taxtasimuna lañ d' accord na deen waaye nag duñ ko rob na taamu ko remplacé ñu taxawaat nag ci yeneen wérat bu istiqaal yi ak yittewoo bu ñu yittewoo man jëmm joo xam ni yu wàlla dana méngoo kàlla am rii xam nga liy kàll ci arab kàll bant bu réew lay doon bu tooy ñu bën cat la rob ko ci biij gi nag bu ñuy bayloo roof bënn benn ba roof ko ci benn béjjinu nag ba ñuy béyloo ñu ànd a kostante duñu mën a sépaar na leen bant boobu la jóge te mënuñu koo teggi loolu la ñu lay tudde lépp loo ilif te jubul soxna soo mënoo la delloo sax ci la soxna soo mënoo la dellooy bokkam te kiiwul sax ci la kalla la ak xale jàmbur buñ la jox te xamaloo nooy def bàyyi kalla la kalla ak xale tàbboon nañu def na nabi rob jëmmam ju tedd ci ngir ñaari fee première ba min daxsatin tarug ngëlante kon neen min daxsatin aaxaro daf na nabi wa aaxaro daf na nabi listiqaalihim man yu wala kalaam yi sëñ Aliou xelam a ngi woon ci woon place Moustapha Seydi Ibn Maas xajaru bi indi ko zona bi bëgg te indi ko Medina ne waa Màkk bu leen gàtt doxandeem bu ñu def ci Moustapha lay yem bor la ñu yéen li ngeen bëgg la ñu bëgg candidat bi gën a jub waaye ah doxandeem rek ñoom unité ci biir ah loolu yomb na moo tax keroog ba gars yi ñu rajaana ila almadinati fa arzana lahaddu min hadalam dañu def istislam nag boobu borom bayaan borom bayaan di wax delloo demir du jeexal la mu doon wax dëgg la wallaay loolooy am waaye nag dañuy juum سنو ما مالو تغان دي كوكو سنو كو خاني كوما فلي دال عز ولي رسوله ولي المؤمنين ولكن دال منافقين لا اعلم سيدنا لا خام خالي بو توتي ون نبي دا بوغو ميدي رك بوغو بابام دا نكو وانا دوم ني نالا تو خلاص دي سو بوغو لا بوغو ني واي ريك دوم بوكو يبنو فخي تاخا بوكو يب مكنو نون دك لو رك لا لا دي كرو بني دم كرو بني دم حاجه راه ndax ñak ñu ne balaa root mbuusu kan rootal mbuusu Moustapha fal pour ñu mu dina kexe fal pour ñu Abdoulaye Ndoumbé Abdoulaye Ndoumbé naa fekk la mbokk ya ko mbokk ya ko mbokk ya ko obligé ñëpp tuub mu tuub waaye xol bi mosul a jóg tig naa fekk alors mu meer ne gisa rek ci bëkk démb la fi ñëw alors ah, ma ñëw attale ne kenn du rootal rootalu ñu ne mu dóor benn waay ci a nan yow moom dëkk bi juddoo bi di ko màgg dàqee bu ñëwoon bu ñu ko dàqee kon tey du am du am autorité ba naan kenn du wax sa rootoo